Euh, xam nga loolu aussi comme je dis mu loolu lu tax li tax ci mbind livre bi ci la bokk mooy cette euh, ni ñuy gisee Baye Fall. lu yàqu ñu ne Baye Fall lu tëlim ñu ne Baye Fall. Baye Fall tamit nekk ci capital. waaw waaw yenn gox nit ñi. waaw i këll. mbubboo ay naan suukar seeg sëñ mm-hmm. beeg. waaw ah, yi tànkal nit ñi sonal nit ñi. dama ba leen di agressé en quelque sorte. te yooyu yëpp ñu bëgg koo féetale man ba ma ko laajee man dem naa Mbàkke ñaari Baay hmm. xaw ma fàtte naa événement bi ba ma ko laajee. kilifa gi koor la woon boobu la woon bi nga demee Grand Anne. est que du bu ko jiitu non lu ko jiitu la. lu ko hmm. jiitu la non loolu yàgg na. ma laaj hmm. kilifa gi laaj ko ni ko ni ñuy ni ñuy wax ci Baay Faal yi Ndakaaru yooyu ak ni ñuy sonale nit ñi mu ni ma ñooñu de nekkuñu ci sama ndigal mu ni ma samay Baay ñu ngi fii ak man. Mm-hmm. wala ña nga ca tool yi ma yebal. ñooñu lañ fa nekkee seen bopp lañ fa nekk. te muy dëgg. waaw boo jiisee sax comme li ñuy wax moom wax na lu leer dafa ne tey jii Baye de du képp mu mën a nekk Baye Fall. Mm-hmm. ndax Baye mooy koo xam ne dafa joxe boppam ba ne total entière jox ko sëriñ bi kon kooku amul jotu nekk ci leneen. Mm-hmm. tey jii comme ni nga ko waxee rek moom moom dugg ci kër sëñ Touba. li ñu waxoon ci moom slogan bi mooy yendoo yendoo liggéey fanaanay root fanaanay root même heure ba mu daan gisee sëñ Touba sax mooy heure ba mu xam ne da doon ñibbisi di root di root di root ndaali hmm. foofu la ne ko ah sama sëriñ mu tedd daa bëgg nga wax ñii yaay kan def na ko ñetti yoon sëriñ bi tànqam lu ko ñetteel bi la ko sëriñ bi woote ñëpp ñu ñëw moo leen képp koo xam ne xam-xam moo la fi indi woon mën hmm. bëgg jëm ci yàlla mel ni Cheikh Ibra Fall mën ngaa toog tey hmm. cest à moom la mu fa nekk lépp tarbiya bi mooy liggéey lépp lu waay a def moom moo koy def te loolu moo taxoon amul jotu dara amul sax jotu maanaam wat kanamam. moo ca la te foofu la njëriñ tàmbale. Hmm. amul jotu maanaam tey jii euh, comme que xam na ni yoonu lislaam da nga war a set moo tax moom il était d'une propreté extraordinaire. mais amul jotu maanaam yëfi àdduna. dem di solu du lu mu sabab daal du lu mu sabab déedéet du lu mu sabab parce que amul jot nee na yoru suñ tubaab kenn du am jot moo tax ba mu demee Saint-Louis am na ñoo xam ne dañu ko dañ ko bëggoon a taqal ñu ne ko ah kii de mën naa am li muy def nii yëpp dafa bëgg wane ni ndax dafa ne nañ am nañ xam-xam ndax kii am na xam-xam mën naa am li muy def nii moo tax mu bëgg mbuboo loolu ne am na xam-xam foofu la bind Jazbul Murid mm-hmm. te nee na dootul bind ngir war ma bu mu war a bon man sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa moom moom bind moo tax ñu foofu la mën bàyyee bind loolu am na solo pour pour ñeneen ñi koy laaj ni suñ maam Cheikh Fall musul bind aussi du julli daa nga juum daana na ñu bari ñu ko fekk ci biir néegam mu julli ba fajar hmm. moo tax ma ni nga yoonu Baye Fall bi moom lu foog lu waaye di wax na ko xam hmm. ndax Baye Fall laa yóbbu naa de sëñ Mountakha mii nee na woon Baye Fall bu dëgg moom gën sa bopp mi. Baye Fall dëgg